أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi eggali bismillahi tabaraka wa taala ci tontu yooyu ñu doon tontu almulhid boobu alkaafir boobu tudd professeur Sankare ci wax yi mu doon wax ne alquran kirtiilu grec la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajalaatu rek indil ko nit ñi samedi defoon nañ ci juróomi tomb bismillah mu des yeneen juróom ñu bu ko ko eggali ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala juróom benneelu tomb yi tomb bi mbokk yi mooy al ijaz al bahir alladi ishtamala alayhi al quran fi amri tashri xaysu al adlu tam فلا وكس وشطت فلا تجد قانونا من ودع البشر بهذه العنابة والرعاية juróom benneelu tomb buy wane ne alquran waxu yàlla tabaraka wa taala la mooy al ijaz al bahir mooy lottuloo gi nga xam ne lottuloo na ko gu mat sëkk lépp lu mu mën a doon te lépp lu mu mën a doon alquran bu koy wax dina ko faram-fàcce tënk ko mu leeral ko ba mu leer naññ loolooy li nga xam ne istamala alayhi alquran moom la alquran ëmb rawatina nag fi amri tashri ci mbirum jàngale diine ji sharia bi di sharia l'islam alquran li mu jàngalee ak ni mu leeralee sharia danga ci fekk maandute gu mat sëkk xoolal ñun sax rek tey ci sunu tarixa yi tarixa yi nga xam ne moo am ci réew mi da ngay gis ne maandute amu ci amma sharia islam maandute gu mat sëkk sëkk sëkk moo ci nekk ci tomb boo jël doo ci fekk ay déngi déngi ay sikki sàkka wala faral ñi wala yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shu'uban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum alquran fekk ñu doon ànd ak yonent bi mbokk ndekk mbokk deret waaye ñu nekk ay yéeféer yu ñuul kukk kukk kukk kukk alquran bàyyi leen foofu far ak bilaal mi nga xam ne éthiopien la ab jaam la est-ce que bilaal kese la alquran ñëw fekk ponkal yi ñi naan ay sang mu ñëw ànd ak jaam yu ndaw yi parce que ñoom ñoo nekk ci dëgg kon moom ñëwul pour xool xeet ana ñu weex ñi ana ñu xonq ñi ana borom alal yi ana nangami ana nangami déedéet alquran dafa ñëw rek rëdd wenn yoon woo xam ne moom la yàlla bëgg ku ci jaar rek yaa ngi ak yàlla ku ci jaarul ak noo mën a mel bokk ci programme yàlla tabaraka wa taala mu ne fala tajidu qanunan min wadi l bashar bi hadihi l inaaya doo fekk mukk benn loi boo xam ne doomu aadama yi ñoo ko tëral tey dëgg-dëgg mu maandu maandu gi nga xam ne alquran maandu na wala luwaa yi sunu njiitu réew yi yor loo ci fekk lu jëm ci seen côté lu leen di arranger luy baaxal ñoom seen dund amma peuple bi da ngay fekk fala waaye xoolal alquran li yàlla digal yonent bi loolu la digal ñëpp li yàlla wax waa kër yonent bi loolu la wax waa kër ñëpp yaa ayyuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisaa il muminin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما da ngay fekk yàlla mu ne yonante bi waxal sa waa kër waxal say doomi jigéen waxal jullit yi jigéen yi ñoom noonu muuru est ce que muuraay bi dañ ko sant rek waa kër yonante bi mais ñëpp lañ ko sant est ce que yàlla bi muy wax ragal yàlla dafa ne nit ñi nañ ragal yàlla bàyyi yonante bi yow loo neex nga def ni yàlla waxee nit ñi ragal leen yàlla noonu la waxee yonente bi yaa ayuha nabi ittaqillah yaa ayuha alladina amanu ittaqillah yaa ayuha nnas ittaqu rabbakum maanaam lépp liñ ñu sant lañ sant yonente bi alayhi salaatu wasalaam doo fekk mukk benn loi boo xam ne doomu aadama moo ko tëral mat sëkk respecté doomu aadama comme ni ko alquran defee sàmm doomu aadama comme ni ko alquran sàmmee amul sànq laay déglu rajo bi ci suba ci oto bi ma nekkoon ma déglu benn jigéen mu ne benn dëkkandoom moo ko sotti diwlin bu tàng yaramam lépp lakk ñu yóbbu ndaw si justice tëj ko trois ans mu ne ndaw si un an la tëdd ñu génne ko ci biti lu tax ñu ne Ablaye Wade moo ko baal bi muy baal nit ñi la ko baalaale gis ngeen loolu màndute la ba pare léegi lu xew mooy ndaw si nee na saa yu ma dajeek moom daf may reetaan mooy lama la def ku sotti ni diwlin bu tàng loo bëggoon ci moom ah ah xam nga loolu tey bu doon lislaam la amul karaas parce que alors daa moom loi bi bay waale mais xoolal ñun suñuy loi président lu ko neex moom bu ko neex mu baale ah parce que moom moo yor réew mi moo yor affaire bi bu ko neexee moom mun naa baale ku mu neex mu baal la ku mu neex mu tëj la loolu mooy diine loolu mooy maandute l'islam du loolu l'islam ñëpp a yem fala fadla li arabin ala ajam ñu weex ñi gënuñu ñuul ñi ngëneel daal yàlla fenn dong la ko wax mooy inna akramakum indallah atqakum ñaareel juróom-ñaareel luy wane ne alquran wax yàlla la mooy ixbaarul quran bi umurul xaybiya la yumkin lil aql an yastaqilla bi idrakiha danañ fekk alquran xabaar ay mbir yoo xam ne kumpa la xel sax munu koo nangu munu koo daj alquran ñëw wax ko nit ñi bi xam-xam ñëwee tey ñu toll ci science toll ci lu kenn xamul science ñëw ànd ak alquran ci loolu mu waxoon te alquran ba mu koy informer nit ñi kañ la woon septième siècle ñu nekk tey ci vingt et unième siècle ak àddina bi ni mu avancé ak science science ñëw daan ne alxuraan li mu waxoon noonu la mu ne loolu alxuraan ñëw saxal loolu science ñëw saxal ko mu ne suñ la ci jox benn misaal dañ lay jox nit nu muy tëddee ci biiru yaayam doomu aadama nu muy formé woo xoolal alxuraan ni mu faram-fàccee nit ni muy sosoo ci biiru yaayam yàlla dafa jàpp mbir mi ca ndox ma balaa góor ak jigéen di sëy ba pare yàlla sant góor ak jigéen ñu sëy ci mu dagan ko mu daganal ko ñoom ñaar bu ñuy sëy ndox moomu doomu aadama di sosu fan lay génn ci góor fan lay génn ci jigéen naka lay def ba formé wu ci biiru jigéen ndox moomu lan moo ko composé lan moo ci nekk loolu yéen ñi koy jàng tey ci ban science ngeen koy jàng ci ban faculté ngeen lañ leen koy jàngal ah ah voilà du médecine ngeen di jàng ñaataat sept ans yi leen koy jàngal université yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw jàngale ko alquran ñëw leeral ko te yonent musta jàng ban université moo ko doon xamal yàlla wax ni mu bindee nit nit nu muy composé ci biiru yaayam bu judd jot nit nu muy juddoo tey tili alxuraan waxoon amul lu ci science dindi beneen mooy mbirum géej est-ce que yonent bi dafa musa li waa ji di wax keroog maa ngi benn vidéo bu ma enregistré ci ban télé 2S waa ji naan yonent bi deux missions la am moom moo ñuuloon fee weex fii yàlla waxoon na yonent bi di nga dëkk ci wetu géej jaal yi di dugg ci biir géej gi di la jàppan jël bu tooy nga ciy lekk yonent bi musul dem géej laaj nañ ko ci géej nag mu tontu xadis bi moo nekk ci première bunt ci bulughul maram inna narkabul bahra ñun danañ dem géej dañ yor tuuti ci ndox buñ ko jàppee duñ am lu naanee buñ ko jàppee danañ mar yonent ba muy tontu lu mu wax maa ul bahri tahuur ndoxum géej dafa laab ba pare mu ne leen meddum géej dagan na yonent bi musta dem géej waaye xool leen alquran li mu leeral ci géej xool wax yàlla la yàlla mi leeraloon nit nu muy tëdd ci biiru yaayam nu muy juddoo xamal ko yonent bi alquran ñëw nose ko leeral ko tey soo demee ci géej fekk alquran lim la wax lëndëm bi nekk ci biir géej lii tax na ay boroom xam-xam yu ngand yu ponkal tuub ci àdduna ñoo xam ne ay yéeféer lañu woon am na benn téere bu tudd innahul xaq tubaab yi wala ñi jàng français daal di koy traduire tudde ko ceci la vérité ah ceci est la vérité de téere boobu bu ngeen ko liiree di ngeen fa fekk boroom xam-xam yi nga xam ne kiimtaan mujiza moo leen tuubloo yonent bi wax fa ay mbir yoo xam ne septième siècle science dafa ñëw nangu ko téere boobu noonu la tudd innahul xaq bokk na ci yàlla buy lakk nit ñi safara nit der yi di remplaçante der bi ci kaw bu yàqoo beneen der bii ñëw loolu alxuraan kañ la ko wax li moo leen di wane ne alxuraan kon waxu yàlla la du waxu doomu aadama du comme waa ji li mu wax naan culture grec la yonent bi ñëw jàng gëstu ko ñëw di ko jox doomu aadama yi alxuraan weesu na foofu mu ne lii tey tax na boroom xam-xam yu bari ñoo xam ne du ñu woon jullit min xayril muslimina lii tax na ñoom ñu daal di tuub ndax keroog ba ñu xamee ne lii ay dëgg la yoo xam ne alquran moo ko nettali allati hakaha alquran la yumkin lil bashar idrakuha lii doomu aadama kese kese kese mënu ko jàng nii wala al islam bu muy wax xaj iza walaga al kalb iza walaga al kalb fi inaay ahadikum bu xaj dugalee gémmiñam ci ndabu kenn ci yéen nañ ko raxas juróom-ñaari yoon benn bi nu am suuf jàng nañ ko fi alquran am na ñoo boroom xam-xam yoo xam ne li leen tuubloo mooy pourquoi yonent bi wax nañ ci def suuf ñu jël xaj lekkloo ko ci ay bool yu bari jël microscope raxas bool yi ba mu set jël microscope tiimale ko ci ñu xool ñu gis raasu xaj bi des ci bool yi ñu raxas raxas raxas ba sonn ñu gis raas bi des ci bool bi waaye ba ñu jëlee suuf des ci mu set wicc ñu ne kon kii dëgg-dëgg li mu indi ci yàlla la ko jëlee loolu loolu sikki sàkk waru ci am septième siècle ba léegi nit ñi wax xam ngeen ne alxuraan bu dul woon dëgg septième siècle ba léegi kon attaques yi bëri na ah kon werante yi bëri na ci diingat gi bëri na waaye noonu yàlla yi li ñu xam ne lii mooy dëgg moo tax chaque jour dañ koy attaqué te loolu incha allah ci kanam yàlla subhanahu wa taala dinañ woon dëggam yépp mbokk jullit yi mu ne alquran leeral na loo xam ne ca jamono yooyu xel mënu ko woon nangu lu dul nit am xam-xam nit yor ay appareil wala yi nit yor ay outils yoo xamante ne loolu dong moom moo koy wan ne lii lu am la comme tey ni mu xewe ci jamono mu ne bokk na ci min anna alquran qad jaa biha fi waqtin kanat al umam fihi bidaiya xoolal alquran bi muy leeral loolu boobu nit ñi fan lañ toll yenn saa yi sax nga dégg gars yi tubaab yi naan la moyen âge wala lan ngeen di tuddee moyen âge lan ngeen di tuddee moyen âge ah ah ah lan ngeen koy tuddee mooy lan moyen âge su ko tubaab yi waxee lu ñu ci jublu mooy jamono ba nga xam ne nit ña dañ doon ngem mbokk amuñu sax yére yu ñu sol amuñu dara suñ daan bind sax amul lii xew nii amul lan lañ daan binde ay garga mboose yi xonk yooyu lañuy jël dëpp capp ko di ko bindee ci jamono yooyu la alxuraan wàcc ci ay nit ci ay arab ñoo xam ne ay sàmmkatu gëléem lañu woon xamuñu woon dara ci àdduna kon naka la doomu aadama mun a taxawee tey ne yonente bi dafa dafa jàng kan ma ko jàngal ci jamono yi kan mu ne wa laysa indaha illa al awliyat al maarifa mu ne amuñu woon benn xam-xam doomu aadama yooyu jamono yi kenn xamul dara waaye alxuraan moo ñëw commencé yee nit ñi di leen jàngal moo tax baat bi ci njëkk a wàcc nekk iqra li waa ji naan kuñ ne iqra ça veut dire que jàng nga ndax al aaya bi na ne jàngal mais liiral yow boo bindoon ci tableau enseignant bu bindee ci ay lettres ci tableau di jàngale di jàngale élève élève sixième boo ñëwee da ngay bind rek ne liir leen wala da ngay bind liir ne leen liir leen ah da ngay bind ne liir leen wala da ngay liir ne liir leen da ngay liir ne liir leen Jibril lu mu ñëw ci an lu mu ko wax iqra loolu la ko wax yonent bi ne ko mënuma liir après ah ah du Jibril la wax mu topp ci iqra bismi rabbika allazi xalaq mu dem ci kon kay bi mu bi mu bind bi mu ko nee iqra bu fekkoon ne mën na jàng lu muy wax day tàmbali rek daa ne iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insaana min alaq comme jàng na waaye dane ma ana bi qoori loolu tamit beneen aaya ñëw dëgër laatal ko ma kunta tadri mal kitaab wala al iman ba pare nga jàngaat siira loolu tamit dëgëral ko keroog ba yonent bi di jàngale weer ñaata fan la keroog ba yonent bi di di signé sulhu Hudaybiya yooyu yëpp da ngay fekk ay élément la yoo xam ne yonent bi jàngul woon yàlla moo yónni jibril jibril di ko indil waxyu mu koy jàngal doomu aadama yi juróom-ñetteel ci li wane ne alquran waxu yàlla la mooy ma hakaahu alquran fi ixbaari al umam almaadiya wa tafsili ma xasala lahum mimma la mimma lam yumkin alwuquuf alayhi lawla zakarahu alquran alkarim mbokk yi bokk na ci li ñu wan ne alquran waxu yàlla la li nu alquran nettali ci ay xabaar ci ay xeet yu weesu woon alquran ñëw nettali ñu ne ñu ay xeet jaaroon nañ fi xeet yooyu yàlla leeral na mu jëfandikoo ak ñoom su ko yàlla waxul woon kenn du ko xam xoolal firawna benn rek moo ñu gën a jege ndax moo ngi Égypte ba léegi mu ngi exit mu ngi exilé mu ngi mu ngi nekk mu ngi am ndax yàlla nettaliwu ñu histoire firawna daa nettal wala daanaka alquran li ci ëpp ñëpp ci xissa firawna la ak Muusa Muusa bokk na ci yàlla njëkk gën a tudd ci quran Muusa ak Ibrahim diggante Moussa ak Firawna lan la ci yàlla doon nettali te loolu soriwul dara yàlla ban na ko dafa tudd baat bi sax ne Misra muy Égypte histoire bi am sunu kanam nga mën a dem ci géej gi ñu ne la géej gaa ngi nii nga mën a dem ñu ne la waajaa ngi nii ponkal maa ngi nii te du Firawna naa ngi nii léegi ñu won la ko wala loolu amul alxuraan di kañ la ko alxuraan nettali kañ septième siècle kon naka la nit ñi mën a gumbaa est-ce que histoire boobu rek la ñu yàlla nettali yeneen xeet aat ashaabul ayka nuux ak ay nitam histoire net alxuraan nettali ba nettaluñu ki yàlla njëkk bind ci nit ñi muy aadam bu doon ne ndeysaan alxuraan culture grecque la pourtant hatta yahudi yeeg nasaraan yi nangu nañ aadama wala bible nangul aadama ah évangile nanguwul aadama est ce que bible nanguwul nuux ah ñoom ñoo naan noé nanguñu ibrahim ñoom ñoo naan abraham nanguñu Moussa ñoo naan Moïse nanguñu Isa ñoo naan Jésus dama tëb ñeneen ya Souleymane Salomon gis nga est-ce que kooku rek la kenn xamul ñaata te yooyu da ngay fekk alxuraan wax na ko wala alxuraan wax ko seen prophète yëpp ñoom ñu nangu alxuraan ñëw na wax leen bal sax la ciy sëkki sàkk ak ay tilim tilim yañ ca def alxuraan dafa ñëw ne non lii moom bokk ci yéen a ko ci dugal hatta labbe yi labbe labbe yi ngeen gis tey yàlla mu ne ñoom ñoo ko créé waaye amul woon ibtada'uha ma katabnaha alayhim waaye la ci yéeme mooy fama ra'awha amul woon ñoom ñoo ko indi créé ko dugal ko ci comme ñun tey ni ñu créé suñu yenn pro ay mbir dugal ko ci islam mais xam ngeen ne ay tarixa amul woon ci l'islam seen ñoom ñi ñee ko sos amul fenn fu yàlla ne nañ ut tarixa créé ko dugal ko ci l'islam amul wala ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñoo ci nekk tey di ci yëngu kon lii day wane ne alquran waxu yàlla la alquran wax ñu xeet yu njëkk ya fi yàlla jaar ak ñoom yenn saa yi yàlla sax daf lay wax ne ni mu leen alage nga mën a jël léegi oto dugg ci àll bi nga dem ñu ne la xeetu sàngam fii lañ dëkkoon dëkku sàngam lañ dëkkoon ba leen yàlla di alag nii la leen yàlla alagee waaw kon ku lii doyul ci information boo war a jot nga xam ne alquran waxu yàlla lan moo lay doyati ñaata xeet la yàlla nettali ci alquran yàlla wax ak ñoom ñaata la tàmbalee ci aadama ba fii nu toog xew-xew bu fi musa xew yàlla wax na ko ci alquran fi mu jaar ak nit ñi bal sax looloo tax boroom xam-xam yi naan mbugal gi yàlla mbugal xeet yi tey bu doon historien mooy bind day bind date bi wala bind mois bi wala ah suñ bulletin de naissance yi lan lañ ci def date de naissance ak lan lieu de naissance ak lan ah heure mu ngi ci de boo demee bulletin bi nga xam ne fa la nit ki juddoo ba bi ngay jël dem mairie dañ ci def heure bi heure bi nga judd doo déggee bébé de l'année ñuy dàkk minuit ku njëkk a judd ñu ne moom la dañ ko ci def alxuraan nag xissaam yi mu nettali fi mu jaar ak nit ñi defu ci date defu ci heure xam nga lu tax yàlla daf lay wan ne mun na répété waat ñi ma ndullee woon ñee wala ni ma mbugale woon ñee mun naa ko indiwaat léegi léegi moo tax utalu ko loolu pour nit ñi bàyyi ci xel beneen bi mooy histoire boobu yàlla daf koy tënk tey pour tey ñu préparer ci suba rabtul maadi lil xaadir wal xaadir lil mustaqbal loo moo tax borom bi utalu ko date utalu ko heure utalu ko nangam daf ko wax rek pour nit ñi bàyyi ci xel kon loolu daf lay won ne alquranul karim waxu yàlla la ni yàlla nettalee yeneen xeet yi fi mu jaar ak ñoom te loolu kenn ñemewu ko weddi parce que bu fekkoon ne alquran rek a ci wax waaye mu ngi ci yeneen téere yi beneen neuvième juróom-ñeenteelu tomb buy wane ne alquran wax yàlla la ma zakarahu alquran an il umur mustaqbaliya ghaybiya alquran ñëw na di nu nettali ay mbir yoo xam ne kumpa la waaye alquran ne dina ñëw ah loolu mooy wan ne laa yaalamu alghayba man fi samawati wal ard illa allah wa ma yasuruna ayana yubasun suma taxaqaqat nee na yooyu alquran nañu eh lii kat fekkewu leen ko ñëwagul waaye xam ngeen ne dina am comme ni alquran nettalee histoire ruum ba ñuy xeex alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون القرآن ñëwنا ne Romain yi day xeex nañ tey ñu gañe leen waaye ay waxtu yu néew ay fan yu néew mi ngi ñëw suñu xeexee ñoom ñooy gañe loolu am noonu la amul Aboubacar sax daf cee tegoon xaalis ba loolu amee xeex ba ba mu amaatee romain yi ñoo gañe parce que jullit yi romain yi lañ faraloon parce que romain yi jamono yooyu ñoom ñooy ñoom ñooy ahlul kitaab gis nga xissa boobu daf ñuy jàngal ne jullit foog mu am fu mu far foog nga am foo far waaye lan moo lay yóbbu nga war a far mooy sa pas-pas gis nga bis bu nekk nit ñi ñi nga ciy faral ah mooy ñu la gën a jege ci pas-pas yow doo far ngir deret doo far ngir réew doo far ngir doo far ngir da ngay far ngir yàlla ku gën a jege yàlla rek kookoo la jege yow ku gën a jege ci yow yàlla moom moo la jege moo tax yàlla bu muy wax yahudi dafa ne la tajidanna asadda nnaas adawatan lillazina amanu al yahud waaye di nga fekk ñi gën a jege jullit ñi mawadda mooy ñan allazina qaalu inna nasara chaque jour da ngay seet ki la gën a jege nga ànd ak moom alquran ñëw wax ñu ay mbir yoo xam ne kumpa la amul waaye mu ne dina am de mbir yooyu daal di am na ko alquran nettalee mu amee noonu di ko alquran nettalee mu amee noonu ah kon loolu moo lay wan ne alquran waxu yàlla la fukkeel mashtamalat alayhi baadul ayat alquran min muatabati llahi taala li nabii muhammad sallallahu alayhi wasallam bii moo ci gën a doy waar ne bii moo gën a garaaw bii moo ne alquran waxu yàlla la kenn ci ñun fii toog bu la sa chef xasoon ci benn lettre sa chef xas la daal lay jox lettre bi ah nga boole ko say diplôme nga koy yóbbu fenn di uti liggéey lettre boobu ñu la xas wala ñu la yedd wala ñu la corriger ci kaw nga koy rek kuy tontu. di nga ko woon nit ñi noo koy def pourtant yàlla yàlla dafay yedd yonent bi ci ay aaya ci alquran ci ay saar bu doon bu doon bu doon yonent bi ay waxam lay wax waxam la moom moo ko moom yooyu yàlla yedd ko nu mu koy def su koy dindi yàlla waxu ko abasa wa tawalla an jaahu al ama wa ma yudrika laallahu yadakka yàlla wax ko lool yaa ngi ñëkkal sa kanam di la gumba ga dikkalee te pourtant yonent bi lan la bëggoon foofu keroog ba yàlla yedd ko mooy toog naa ak sangi Qurays kilifa yi ñuy ponkal yooyu yéeféer yu ngand yooyu xam na ne ñii buñ tuubee rek màkk ñëppay tuub mu concentré wu ci ñooñu bëgg a wax ak ñoom di leen tarxiib mu seen silmaxa bi ni ñëw nu mu tudd Abdullahi ibnu Ummi Maktum yonent bi xam na ne fii la jëm ci mbooloom bëgg a toog yonent bi ñë ñëkkal kanamam ndax dafa bëggoon waa ji bañ a ñëw ba mu recevoir ñii ba pare après ñeneen ñi ñëw yàlla ne ko eh xanaa xamoo gumba gi moo gën ñii loolu bu doon yonent bi alxuraan waxam la da koy dindi beneen mooy histoire Zeyd Zeyd jaamu yonent bi la woon jaamu Xadija la woon Xadija may ko yonent bi papaam ñëw di ko jël si Zeyd ne demuma papa ji ñëw ci yonent bi ne ko kii bëgg ngeen jox ma ko ma yóbbu ko papa ji teg ko yonent bi teg ko teg papa ji daan ne ko Zeyd maa ngi ni tànnal ma ak sa papa ci koo jëm mu ne tànn naa yonent bi papa ji jóg woon ko ginnaaw lu rëy loolu Zeyd def yonent bi ne maa ngi seedaloo nit ñi ne kii tey sama doom la bis na ki tey sama doom la daal di koy taban nii Zeyd màgg waaw takk soxna yonent bi dem labadal ko soxna su tudd Zeynab bintu Jahsh femme bu bokk ci yax bu rëy comme ñun nuñ koy waxee femme bu am qualité bu am personnalité ci famille ndaw si day toog toog ba caag daal na yow Zeyd ah cim xam nga ne de boo jotee ci man yonent bi tax yow man ñoom seen sëy neexul ndax ndaw si day jaay la classe waa ji maa lépp personnalité xam nga ne yow bu ma fanaanee sa ginnaaw yonent bee tax xam nga ne yow xam nga ne yow xam nga ne yow waa ji bis bu nekk day ñëw ci yonent bi saa salaam naan yonent bi ah dal kii te ngaa bàyyi ma jéggal ko kii man mënu ma attanuma ko jàmbat ji bari ci Zeyd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa ñuy wax rek ñoo dem ne ko teel sa soxna teel sa soxna ba bis ñëw Zeyd ne yonent bi fase naa ko bi ko Zeyd fase xam ngeen lan moo xew yàlla ne yonent bi takkal ndaw si loolu tey ku ko defoon fii ci ñun doom joo yar takk jabar fase ko ñu ne la takk nga dem takk luy xew xanaa li gën a tuuti mooy dina la yóbbu tës wala ñu ne papa ji daa takk jabaru doom ji wala waaye nekkee allahu subhanahu wa taala dafa am lu mu namm mooy lan la bëgg a dindi mooy doomoo nit koo jurul nga def ko sa doom mu lay donn loolu ñu naan taban nii moom la yàlla nar a dindi fan la koy dindee nag mooy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne moo ko def te lan moo ko ci dugaloon ki bàyyi na ndeyam ak bàyyam bàyyi mbokkam naa ko doomoo loolu daal di koy boobu daganoon na waaye li ko li ko dindi mooy alquran moo ko dindi ci aaya yooyu ci suratul ahzab maanaam loolu yàlla wax yonent bi foofu ci aaya yooyu bu fekkoon ne loolu dafa dal yonent bi alquran nekk waxu yonent bi wala alquran nekk culture grec bu muy dajale di ko bind di ko jox nit ñi loolu da ko ci bind xoolal aaya alquran yi ni ko yàlla nettalee yàlla mu ne wa is taqulu lilladi anama allahu alayhi wa anamta alayhi amsik alayka zawjik wattaqi llah wa tuxfi fi nafsik ma allahu mubdihi wa taxsha nnaas wallahu axaqu an taxsha falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha likay la yakuna likay la yakuna ala almuminina xaraj yàlla mu ne subhanahu wa taala keroog ba waa ji ñëwee di la jàmbat jabaram naan la sama soxna si sama soxna si sama xam sama soxna si te yow yow yaa doxi woon sëy bi yaa ngi naan ko am sik aleyka zawjaka teel sa soxna de teel mu dëgër wattaqillah ragalal yàlla teel sa soxna wala yàlla li mu wax yonent bi wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdi yaa ngi naan waa ji mu téye soxna si parce que xam nga ne yàlla nee na la bu fasee soxna si nga takk ko te yow bëggoo loolu parce que loolu ñaaw na ci yow moo tax nga naan ko téye ko ragalal yàlla teel sa soxna parce que xam nga li la ci yàlla nar a def ndeysaan lan la aaya yi continuer ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdi yaa ngi nëbb ci sa bopp loo xam ne yàlla daf koo nar a feeñal mooy lan bañ a takk ndaw si suñ boroom nee na ko wa tax sam naas ngay ragal nit ñi ci ëllëg danañ ko nettali cey muhammad la mu def lu muhammad def dafa takk doomu soxnaam ndeysaan wa tax sa naas loolu ngay bañ nit ñi nettali ko wax ko moo tax nga naan ko téel sa xal téel sa soxna ragalal yàlla te xamoo ne loolu yàlla daf ko nar a dindi wa tax sa naas te wallahu ahaqu an taxshaahu yàlla moo gën a yay nga ragal nga ragal ko su fekkee da ngay ragal yàlla gën a yay mu ne fa lamma qada zaydun minha wataran ba zayd doyalee ci ndaw si këcc suur ko zawañ naakaha laala laa la ko takkal moo tax zeynab doon toog ba càgg jigéen ñi bu ñuy bàkku ku nekk naan man man man man mu ne lee dimbali leen ma lu ngeen di bàkku bu fekkee am na ko war a bàkku maa war a bàkku ñu ne ko lan la mu ne ma sama sëy kaw asamaan lañ ko takkee yàlla doon xut ba jibril naan amin dimbali leen ma wax na dëgg de ci kaw asamaan yàlla ak jibril ñoo ko fekki ñoo takk sëy bi ah est ce que am na ko gën a foor ku takk sëy ñaar ñooñu na la moo tax kooku war na bàkk wala warul bàkk ndeysaan kon aaya yi bu fekkoon ne am na lu nit su fekkoon ne alxuraan waxu yonent bi la wala culture gi rek la ndax lii yonent bi dina ko ci dugal kon da koy génne parce que ay yedd la yu ko yàlla yedd beneen aaya walaw taqawwala alayna baadul aqawil la axasna minhu bil yamin summa la qata'na minhu alwatin ala nee nag li ma ko sant alquran bi ma ko jox bu ci changé woon virgule danaa ko téye ak sama loxo ndeyjoor dinaa dagg put gi boli gi laay dagg lii mooy boli yaa leen dama koy dagg nit bu ñu daggee boleem nu muy def ah waaw kon lii rek ay yàlla yedd yonent bi ci qur'an aaya yooyu rek wane na alquran du kiltiru gi rek waxu yàlla la parce que ñemewu ko ñemewu ko wàññi ndax yàlla nee na li ma la wàccee aaya yi ma la jox boo ci nëbbee dara wala nga wàññi ci su ma la téyee du baax moo tax lépp la génnee yeneen aaya mooy qul yi qul qul auzu bi rabbil falaq qul auzu bi rabbin nas qul huwa allah qul uhiya ilayya qul mooy lan ah waxal moo tax ñi doon wax qul yi nañ leen dindi ndax yàlla dana yonent bi nekkatu fi yonent bi la doon wax qul nañ dindi qul yi da koo ñëwee dindi da koo moom du waxam moo tax ni ko ko jibril waxee qul da koo répété da ko répété mais mënoon naa wax auzu bi rabbil falaq waaye comme dañ ne ko qul waxal liñ ko wax la wax moo tax xul yi nekk ci leneen luy wane ne alquran ba tey waxu yàlla tabaraka wa taala la ci aaya yu mel nii mooy ah abi lahab lanam la abu lahab lanu ko yonent bi la bàyyi taxam papaam bu ndaw waaye ba ko alquran xasee ndax yonent ah kii de sama famille la bokk wax dëgg yàlla yàlla naan mi ngi safara kon xaar ma dindi ko waaye waxu yàlla la ñemewu ko dindi moo tax gis nga mu am suuratu masad wala ngeen ne suuratu lahab yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ko ci bàyyi kon alquran fukki tomb yi moo leen di wan ne alquran waxu yàlla la du waxu du waxu jinni du ay woy du asatirul awwalin comme noonu gars yi di ko waxee ay léeb ak léppoon amoon na fi ba mu amee yaa ko fekke nangam ak nangam alquran wax ñu mbirum àdduna wax ñu sunu dund wax ñu danañ dee buñ dee fuñ jëm foofu ñu jëm buñ fa jógee fuñ jëm danañ ñu dajale ci kanamu yàlla sunu mujjantal mooy aljanna wala safara lii leer na ah culture grec kay xanaa demul ba àllaaxira di wax safara nu mu mel aljanna nu mu mel wala grec yi dañoo dem aljanna xam lu fa xew indil na ko kon ah waaw kon loolu ay mbir la yoo xam ne dëgg-dëgg nit ñi war nañ ci bàyyi xel alxuraan li mu wax lépp dafa leer amul lu mu lu mu denc ñëwul di wax ay culture rek nangam nangam ñii nii alxuraan dafa ñëw wax doomu aadama nit ci boppam lan mooy mission ci kaw suuf xeetu doomu aadama kooku tudd nit lan ngay utsi ci kaw suuf sa dund gii ngay dund lan la yàlla bëgg ci yow fii nga nekk loolu moo tax alxuraan wàcc kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumaat ila nuur téere la boo xam ne maa ko wàcce ci yow pour nga génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer ñaata aaya yu mel noonu ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen li yàlla wàcce mu ñëw ci yéen kon mbokk jullit yi fukki tomb yi lan ñëwoon doon yeggali ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amee question incha allah dañuy note